l'héritage du président mhm. de l'APR est-ce que nekkul en danger parce que mhm. euh, candidature bi nga bëgg a bëri te sax yamu ci bu doon débat di rek comme ni nga ko waxee ñu applaudir mais ci ce pas plus tard que ce soir nga xeex am na ci permanence APR bi entre militant Amadou Ba ak yu Abdoulaye Diouf Sarr gis nga héritage président Macky Sall xam nga ci kan la nekkul en danger mhm. ki ko mën a jibal saxal ko mu sax ba ñii ñëw ci ay ba téeméeri at mën ko taataan jot ci man maa yor yax bi xam lu tax. Mhm. parce que man ma bind ñeenti téere yoo xam ne nii benn bi mi ngi aju ci institution gouvernance paix et sécurité et développement. Mhm. ñaareelu téere bi mooy doctrine économique Macky Sall lan lay doon boo jàngatee politique officielle am maanaam discours officiel am muy développement rapide. beneen bi mooy lépp lu aju ci nekkinu askal mi di politique sociale bi ci mujj mooy écologie environnement ni ñu wër naka lañ koy wattoo man maa la mën a wax. jamono diggante deux mille ak deux mille douze deux mille douze ak deux mille vingt quatre lépp lu ci Macky Sall wax ci pàcc yooyu nga xam ne ni moo ŋànk réew ci man rek la nekk ndax man lañ ko liggéeyloo ma am ko président Macky Sall ñëw na présider premier tome bi lànk ñu du présider deuxième tome bi te pourtant ba mu présider lancement premier tome bi. Mhm. ba ma présente ko xam dafa jóg nuyu ma image yaa ngi fi. xam nga lan na ma wax ci sama nopp. Mhm. Abdoul Aziz 2019 yaa nekk sama sama sama directeur de campagne. ma walanteeru mai 2018 la woon ma ni kon avant novembre 2018 danaa pare tome 2 bi. Mhm. le Sénégal accélère son développement teg ko ci table ba ma ko tegee ci table xam la xam la li ñu wax téyel leen ma tome yooyu ba ma génne sama livre bopp Sénégal au cœur. Mhm. ca la wax li tax mënatul nekk candidat tax mu war a wàccoog moom man maa yor héritage doctrinaire bu président Macky Sall mën ko tey boo ma ni woon. lan la président Macky Sall wax bis sangam ba muy présider nangam ci pacc sangam. ñaari clic de souris ma jox la ko xamul tax. Hmm. mu yomb ci man parce que man dañ ma tàggat ci analyse de contenu du discours politique ci la spécialisé wu en sciences politiques. Hmm. yàlla baax ma sama xam-xam màcc ci li tubaab tuddee lexicométrie gis nga Afrique la ko dalee ba ci Cap benn lexicométricien bu liggéey ak lexicométricien yi nekk ci jamono. la am muy sama jëmm ji te ñu ko xam bariwul xam lan mooy lexicométricien mooy koo xam ne nii kaddu yi nga xam ne nii moo ŋànk discours politique bu mën a doon ak nu mu mën a toll bu dee junni ñaari junni fukki junniy xët ci ñaari clic de souris moo wax la lan la discours bi wëndu la ca ne te kenn tudd ko te ma nga ca dis mu doon lu am solo en 30 secondes vous maintenez votre candidature ndax aussi xaaroo ay sanctions jóge ci parti bi nga bokk je maintiens ma candidature à la candidature de Benno Bokk Yaakaar à l'élection présidentielle du 25 février 2022 2024 si jamais j'étais privé de cette candidature sans ne soit respectée la procédure que président Macky Sall a entérinée lui le 5 le mercredi 5 juillet 2023 à la place euh, à la salle des banquets mm -hmm. j'en tirerai les conséquences si le président de la République rentre au pays et me démet de mes fonctions de conseiller spécial je le remercie remercierai de m'avoir permis de l'accompagner pendant 12 ans, 12 ans. et j'en assumerai j'en assumerai mes restes j'assumerai j'en tirerai les, les, les conclusions donc dans tous les cas de figure sauf volonté divine je suis candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024 et pour quelle et pour quelle raison mm -hmm. pour dox yónnentu sénégalais yi parce que yàlla moo def ci sama dënn loo xam ne nii ay kaddu la bu jibee fokk yàlla def ci taw fee xamul nga lu tax mhm. parce que ndaw ñi li ñuy xaar mooy xëy ma leen di wax ni man Abdou Aziz vous avez la solution man Abdou Aziz bu fekkee ni yéen ndaw ñi xëy moo tax yéen ndaw ñi dama xam xam lu ma leen di laaj est-ce que mën ngeen a nangu yéen ndaw yi Sénégal góor jigéen di dugg ci ay gaal di sànku jox xëy ki ne ci bopp réew mi te xëyu leen. ki la jox xëy yow moom Mamadou Awa Awa Ndiaye. ki la jox xëy mais boo xëyee dafa war a xëy. ma ni leen su ma toogee diiru ñaari at ak juróom su ma xëyee yéen ndawal Sénégal góor ak jigéen ngeen xëyandoo ak man fi may jeexalee. mooy fi may jeexalee mooy. Mm-hmm. ndakaaru yorotu ko ndax ni ñu ko dëkkee jéggi na dayoo. Mm-hmm. xam ndakaaru ban fonction la am mook RTS ñoo yopp fonction xam lan la ñuy jëriñ. <laughs> dàq président bi fi nekk xam xam tax ñuy dàq président bi fi nekk. jonkanu ko pour dàq ko parce que jàpp nañ ne bu ñu ko dàqee dimanche altine lépp sotti gis nga Sénégal bu ñu ko bëggee tabax. mu jaar yoon nañ ko dëkke Sénégal ñàkk koo dëkkee nañ ko war a dëkke moo waral suñu jafe-jafe. c'était très instructif.